nekk fi ci restaurant Khadilo waaye yow kuy jaay or bu baax yaa ah. jaay. or baax. Ah. ci yow lay ñëw ku koy jënd ci ku bëgg or bu baax na def ku bëgg or baax ñoom soxna Kew ñoom ñëpp ci la ñuy ñëw. soxna xool ma ku bëgg përëm. Ah. ngay dem ci àll te xaj yow lu baax ngay jaay. waaw moom laa xam ne même góor ñi sax maa leen góor ñi maa leen jox dëgg waaw dafa leer gis nga ko nii waaw capot yëpp ah waaw luy loolu. waaw yaa ngi nii.